رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال bi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokk jullit yi ñu leen di ziare tey dañ am benn bokk bu fi ñëw pour defal ñu fàttali ñu Oustaz Saïd li comme ni mu ko daan defee chaque at ndax kenn ku nekk war nga xam bu baax yàlla subhanahu wa taala moo ne fadakkir fi nafaati zikron waaye woo ko muy wàcc yàlla subhanahu wa taala jamono jooju saxaaba yi ñoo nekkoon ak yéen yàlla subhanahu wa taala am leen koy fàttali kon fàttali day daal di jëriñ ñëwul pour jàngal ñu waaye dafa ñëw pour fàttali ñu ki nga xamante ni loolu nga xam fàtte mu nekk xewal si yow fàttaliku ki nga xamante ni lu bees la mu soogaa dégg mu doon na ko mu xewal thème bi nag mooy lii muy islam loolu la thème bi di tudd lii muy islam léegi nag moom mooy war ñu développé lan mooy islam incha allah ñu jox ko kàddu bi mu la
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور جعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا واشهد ان لا اله الا الله الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بانزال القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد ان محمدا بلغ رساله القران وادى امانه البيان ونصح الامه ومهوى الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi di am mbégte bu baax dajawaat ak yéen ci néegu yàlla bi nga xam ne année bu nekk ci waxtu wi dinañ fi daje di fi fàttalante sunu wàllu diini nu nowaat ci tomb boo xam ne jàpp nañ ne war nañ kaa waxtaane war nañ kaa fàttalante ndax nit ñi xam lan mooy lislaam thème bi mooy haza huwa al islaam lii mooy lislaam mu ne diine jooju di lislaam mu nekk tilka ni'matul uzma allati an'ama allahu biha alayna diine jooju di lislaam di diiney xéewal gu rëy xéewal bu màgg boo xam ne sunu boroom subhanahu wa taala moonu ko baaxe diinun yasmulul xayaatul muslim kulliha diina joo xam ne daa ëmb lépp jullit bi lépp loo xam ne dund la jullit bi war koo dund islaam dafa ñëw ëmb loolu daa di ëmb mbooleem wàll jullit bi li ci ndaw li ci mag lépp lu mu mën a doon amul lenn lu jullit bi di xëy dugg wala mu xëy di ko def lu dul ne loolu mbokk yi lislaam wax na ci wa maana al islaam waasi wa amiq maanaa dëgg-dëgg islaam dafa yaatu waaye dafa xóot am na benn borom xam bu tudd Fatiha Kan wax na ne lislaam yajma'u ila riqati tawjih dafa boole kawe orientation waaye diqatu tashri' dafa boole ñaw atte yi ci nekk mooy yoon wi nga xam ne moom la yoonal wa ila jalalil aqida pas-pas la boo xam ne pas-pas bu màgg la parce que yàllay kese la amul bokkaale amul dendaaleeg lenn waaye jamalul ibada lislaam dafa ëmb jaamu yàlla bu rafet xoolal koor lañ nekk xoolal góor ak jigéen bi weer wi tàmbali ba léegi ñoo ngi sàppe ci kanamu yàlla tabaraka wa taala guddi ak bëccëg yendoo woor di fanaane naafila di bàkk sunu boroom di ko kañ ci jaamu yàlla yu rafet ay kàbbar ak rukoo ki sujjóot ak i ñaan moo tax mu nekk jamaalul ibaada wa ila imaamatil mihrab waaye mu nekk imaama goo xam ne njiit goo xam ne ci mihrab yi lay feeñee mihrab mooy ci jàkka yi fi imaam yi taxaw mu ne waaye qiyaadatul xarb bu lenn desoon lu dul xeex kon nga xam ne lislaam delluwul ginnaaw ci loolu mbokk yi lislaam boobu ñu war a waxtaane dafa ëmb dundu doomu aadama manhajul xayaa bi kulli ma fii haadihi alkalimat min almaani tey li tax lenn ci jullit yi mënuñu dund islaam c'est parce que dañ jàpp lislaam koor julli aji màkka après jeex na fekk lislaam aw dundin la sibgat allah wa man ahsanu min allahi sibga wa nahnu lahu abidun cuub la gu yàlla cuub nit ba su génnee ci ay melokaanam ay waxakam ay waxam ak ay jëfam ak comportement am da ngay gis lépp lislaam la ci kaw ba ci suuf ci biir këram ni muy dundeek njabootam lislaam ngay gis ci mbedd mi ni muy dundeek dëkkandoo yi lislaam la fa muy liggéeyee lislaam la lépp doomu aadama boobu da ngay gis lislaam la mais xam ngeen ne tey l'islam boobu ñun dañ koo xaaj en deux jaamu yàlla gi lañ jël daal di sànni fa la dundin gi su julli jotee ñun ñëpp ñu daw dem jàkk lenn ci ñun sax nag su koor jotee lenn ci ñun woor su at jotee lenn ci ñun aji waaye dëgg-dëgg malu loolul islam philosophie bi li taxoon yàlla yónnee ñu l'islam góor ak jigéen pour ñu dund ko def ko programme loolu mbokk yi dañ kaa lem ba mu dëgër daal di koy teg côté damay faral di wax ci waxtaan yu bare bari fekk defuñu islaam aw dundin du nu lekk jullit fekk jëluñu programme diine bii di lislaam di ko dund Sénégal du dem du Sénégal rek àddina bi moo dul dem ndax gars yi dañ naan waxtaan la neex borom kër wala waxtaan la neex borom kër kër gii di àdduna dafa am buur bu tudd Allah bu ko tabax wàcce fi njabootam ay jaamam njaboot googu buñ nee dañuy dunu dundee ni yàlla bëgg ay jafe-jafe rek moo leen fi fekk borom kër gi ñëw tabax këram lépp lu mu yaakaar ne day baaxal kër gi mu def ko fi ut ay soxna def fi yàlla def ay njaboot juddu fi njaboot yooyu màgg fekk fi kër gi fekk fi soxna yi fekk fi lépp ci kër gi mu ne gàññ njaboot googu ne du ñu déggoog seen baay kër gi du neex loolu mooy àdduna loolu mooy lislaam ñun jaami yàlla yii di góor ak i jigéen su ne dañuy ñëw ci àdduna dañuy dundee ni mu nu neexee du nu déggoog yàlla jafe-jafe mooy am te tey loolooy li am ñun ñëpp sikk nekku ci ne xam nañ ne adduna bi problème moo fi am ni yàlla bëgg adduna bi mel melu ko ni yàlla bëgg jullit yi mel melunu ko Sénégal bu ngeen laajtee quatre-vingt-quinze pour cent lan lañ musulman lañ gars yi nee nañ quatorze millions lañ kon boo doon xaaj da nga naan treize millions yi ay jullit lañ ah waaye dama leen di laaj di lañ laaj ngir yàlla ci néegu yàlla lañ nekk ci koor lañ nekk ndax treize millions yooyu ñuy wax ay musulman lañ fan la feeñ ci seen dund quatre-vingt-quinze pour cent yooyu ñuy wax musulman fan la feeñ ci sunu dund mbokk yi fan fan la feeñ fen alhamdulilah xanaa bu koor jotee fi mu nekk ni jàkka ji dafa fees góor ak jigéen lan la ñuy def dañuy xiyaamul layli xiyaamul layli sunna la wala farata la sunna la lu tax ñuy dundal sunna bàyyi farata pourquoi fajar bu koor jeexee pourquoi fajar nii jàkka ji feesee góor ak jigéen du ko fees te loolooy farata nañ ko laaj suñu bopp lu tax ma ne su koor gi jeexee ni jàkka ji feesee tey fajar jàkka ji di ko fees góor gi jigéen ana ñi doon xiyaamul layli xanaa kaw asamaan lañ wàcce woon wala ci biir suuf wala dañoo parasité génn ci géej gi ñëw xiyaamul layli delluwaat bal ñu ngi ci biir kër yi waaye xam nga lu tax dañ jàpp diine bi diina folklore bañ nañ ko sax ba Sénégal dañ naan na xumbute dagan loxo ci kaw bàkkaar ci suuf gaa yi di tàccu kafe gi di tàng nuy naan di dóor di dem loolooy sunu problème def islam diiney fo diiney caaxaan su farata jotee ñu teg fale farata yi bu sunna jotee ñuy rëy sunu bopp ci sunna te balaa olof yi dañu ne balaa nga ne naam ne fa balaa sunna farata balaa jàkka yi fees sunna jàkka yi farata lañ war a fees ba pare dañu war a fees fajar fees tisbaar fees takkusaan fees timis fees gee góor ak jigéen nag laa wax mais pourquoi pas c'est parce que loolu mooy farata loolu lañ ñuy laaj yowmal xiyaam yii nii kenn duñu ko laaj c'est parce que lii sunna la complément la day mottali daf lay former pour nga tàmm jaamu yàlla guddi waaw bu fekkee yow liñ lay laaj nekkoo ci dundaloo ko liñ la dul laaj loolu ngay sonn ban njëriñ la am kon nanu bàyyi xel lii ñuy def formation la pour farata yi mën a mat ñoo ngi toog ba heure bi nelawul ñu tàmm ko ay guddi kon war na la war ngaa mën a tàmm yow fajar benn borom xam-xam day wax ne sa portable bu sonné nga xool gis benn numéro nee na li nga njëkk a sentir mooy dafa bëgg dafa am koo xam ne dafa bëgg a jokkoog yow góor ak jigéen ah saa yu seen portable yi sonné li ngay njëkk a sentir mooy dafa am ku bëgg a jokkoog man moo tax sama portable mi ngi sonné wala ok saa yoo déggee nodd ci jàkk yëgal ne yàlla moo bëgg nga jokkoog moom pourtant bi sa portable sonné nga xool gis muy numéro bi nga bëgg yàlla bu mu yàlla bu mu doon nag ab xale bu jigéen laa ilaha illa allah wala yàlla bu mu doon ab xale bu góor nga xool gis muy numéro bi nga bëgg sa biir xol yenn saa sax yenn ins yi nga bind ci bébé wala papa da nga yàkkamti raccroché pour lan pour dégg baat boobu allahu akbar mu dugg sa nopp romb ne carax ci tempan bi wàcc ci xol bi muy wax ak yow ngay yëg ay donju glace ci sa xol dëgg la wala dëgg ma ne dëgg la wala du dëgg allah allah imagineel nag léegi yow kooku nga gaaw ci li ngay def raccroché téléphone bi gaaw wax ak moom ndeysaan nga jël ay heure ay waxtu yenn saa yi nga dugg ligne guddi gi yëpp nga kal ko ci njaganaay bi di wax rek bi nga déggee ca fajar jot bilaal bi branché micro bi ne la allahu akbar allahu akbar sànq bi nga déggee appel bi rek da nga gaaw raccroché tey am na beneen appel bu gën a màgg appel boobu woo la nan ngay def nga lànk di insister mu ne la ashhadu an la ilaha illa allah nga wëlbatee koog beneen nopp bi mu ne la hayya ala salah nga wëlbatee ko beneen côté mu ne la hayya ala al falah nga xëcc mbàjj mi mu ne la asalaatu xayrun min annawm ba léegi xoolal yaa ngi lànk te sànq da ngaa dégg rek raccroché rapidement waaw commencé di di wax tey nga dégg yàlla woola ci appelam bëgg nga jokkoo ak moom nga lànk est-ce que yow kon xam nga lan mooy lislaam est-ce que yow xam nga lan mooy njëriñu dund yow ko yow mi yàlla woo nga bañ a wiw doomu aadama samaroom woo la amaana sax ci ay bàkkaar la la woo amaana ci caaxaan la la woo amaana ci foo la la woo amaana ci li lay suufeel la la woo nga wuyu tey buuru buur yi woo la allah jalla jalaaluhu ne la yow sama jaam waxtu wii dama bëgg a jokkoog yow ngay diis diislu est-ce que yow xam nga sa bopp est-ce que yow xam nga leen mooy njëriñu dund est-ce que yow xam nga valeur dund mooy lan am nga xam nga ko yow dëgg-dëgg mbokk yi ku mel noonu ab kaña sax moo ko gën ku yàlla di woo nga bañ a wuyu borom asamaan ak suuf sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nga xam ne mbindeef yëpp ñoo ngi koy wuyu tout wa in min shay illa yusabbihu bi hamdi amul lu mu doon ci kaw suuf lu dul nit ak jinne dong ñoom la yàlla di woo ñuy diis diislu wa in min shay illa yusabbihu bi hamdi yow yàlla di la woo yow sama jaam yaa abdi yaa abdi yow sama jaam ngay wane ginnaaw est-ce que xam nga sa bopp est-ce que yow yaa ngi diis diislu yaa ngi fàtte yaa ngi fàtte fàttelu waaye bisa ngi ñëw yàlla bu la woowee di nga wuy ci bis bu ñu ne guddi na gaaw leen ku la gën a jege kuy sa mbokk du am jàmm xanaa ñu génne la ci kër gi dugal la ci morgue bi futti la ba nga set sang la sang la yeew la ba nga dëgër teg la ci jaag bi teg ci kanamu imaam ne imaam pare nañ keroog bu la yàlla woowee di nga wuyu moo tax yàlla nañu fa firru ila allah daw leen wuy ji yàlla fa firru la yàlla wax daw leen ku yàlla woo da nga war a daw wuy ji ak système boo mën a wuy jee demal nga wuy ji mbokk yi foog nu xam lan mooy islaam bu nu bëggee dund diine dañuy xam lan mooy islaam lii nuy wax nag haza huwa al islaam lii mooy islaam mooy islaam bi nu yàlla wax pour ñu dund ko yaqulu al imaamu xasanul banna al islaam aqida mu ne islaam pas pas la bu nit di fas soo déggee ñu ne pas pas mooy lu ñuy takk yaa ngeen ci alquran wa min sari nafasaati fil uqad baatu uqad li muy tekki mooy fas fas buum buñ jël takk ko ba nga xam ne suñ la waxoon tekki ko du tekkeeku loolu lañ bëgg nga jël yàlla dugal ko ci sa xol bi takk ko ba du tekkeeku mukk fekk fa sunu yàlla noonu ci suñu xol yi suñu pas-pas du wér loolu tax nit ñi nga gis ñu gëm lu nekk parce que ngëm li ñu gëm moo baaxul pas-pas bi ñu am baaxul day gis kuy tuuroo deret kuy naan deret kuy takk ay yax takk béjjën tukulóor yi dañuy wax ne allah du sina nafanno ummataa koy hóore joomum allah du so tawino tan ina nafa ummataa koy hóore joomum looloy lan ñu ne béjjën su fekkoon ne am na lu muy jëriñ du jóge ci boppu borom ana xarma lekk nañ ko ana derba daaj nañ ko mu ngi fii ñuy jullee ana yaxya seeñu nañ ko nga takk béjjën bi naan ku ma laal dee te béjjën bi musalul fi mu jóge benn waay dafa benn waay dafa jënd picc picc fukki dërëm yi ñuy jaay par fajar xam nga dafa am ñuy jaay picc allahu akbar nga ne sénégalais yi wéruñ fajar gu nekk nga gis ku jënd taxaw ci koñ di jaay picc nga gis ku ñëw jënd naan nii benn waay ñëw jël picc jënd fukki dërëm téye picc mi wërale ko ci bopp bi wërale ko ci tànk yi wërale ko ci ndigg li wërale loxo ndeyjoor wala wërale ndigg li wërale biir bi fu nekk waa ji wërale picc mi daal di tofli sànni picc mi ne nii ba caag daa taalal ñaari laa fi wàcc benn dofa ngi xool waa ji daal ne ko grand mu ne am mu ne ko li nga ko sëf dafa diis li nga ko sëf dafa diis wax na dëgg picc mi attanul li ñu ko sëf yooyu mooy sunu problème tey ay kenn xamul bokkaale da ngay yeew mbedd yi fekk fi ay nen waaw nen nga fekk Carrefour bi sëlëbe yoon ñu teg fi ñeenti nen ñeenti sondel ñeenti guro ñeenti puso ñeenti ñeenti ñeent yenn saa yi ñu ne la juróom-ñaari juróom-ñaar moo tax gis nga buxaa ba yëpp am alal Sénégal njabarkat yëpp ay millionnaire lañ instant bi c'est parce que nit ñi njabar rek lañ gëm gëmuñu yàlla pas-pas yee wéerul looloo ñu jural léegi ba dañuy dem di sulli néew yi dem ci armée li fekk ñu dee ñu leen di sulli waaw ndax ay yax ndax néew bu ñu suul guddi àjjuma ndax néew bu ñu suul nangam ndax néew bu am 40 jours ndax néew boo xam ne ndax néew boo xam ne ndax loolu mooy sunu problème tey Sénégal bokkaale c'est parce que pas-pas yee wérul sëriñ bi nee na al islam aqida islam pas-pas la sa fas-fas bu wérul ci yàlla yàlla boo ko takkul ci sa xol yi ba mu ne keng nga xam ne lu dul moom doo ko ragal doo ko tiit lu dul moom du la tax a jóg lu dul moom du la tax a def da ngay sonnal sa bopp lépp loo def daf da ngay perte bokkaale dafay yàq jaamu yàlla comme ni lu nëpp di yàqee lekk bu baax da ngay lekk gerte nga tibb dànk boxoñ yépp naaw nga sànni ngay sàqami mu neex trop nga préparé waat beneen boxoñ fekk bu nëba ngi ci nga sànni kërëj li feesoon gémmiñ géeb yaa xoolal benn benn moo fa fekk sans yàq yépp noonu la lu bon di yàqee jaamu yàlla mbokk yi kon suñu bëggee dund diine nañ defar suñu pas-pas nañu gëm yàlla rek xoolal tey façon woote bu nekk di nga ko dégg Sénégal ñii dañuy gis yàlla kii yàlla la kii moom yonent bi moo ñëwaat ci moom moo bula woon fële verte fii moo maroo woon fee weex fii kii moom bés bu nekk ma ngay fanaani arsh moo yàlla ñoo dëkk kii léegi-léegi moom la fa jóge kii téléphoné na ko sànq buñ jëm façon bu nekk nga dégg ci dëkk bi am na ñuy gis yàlla jaaraan gis yàlla ndeysaan gis yàlla yàlla ne man kenn mënu maa gis nga gis ku taxaw ne man gis naa ko ci alxuraan la ko yàlla wax de kenn mënu maa gis laa yudrikuhul absar wa huwa yàlla nee na man bët mënu maa gis yàlla dafa rëy ba bët mënu ko xool jàkka ji est-ce que bët mën na ko gis ba mu daj tey ñu ñu nekk ci biir jàkka ji benn partie ci jàkka ji la ñuy gis man mii sama kanam rek laay gis gisuma nekk sama ginnaaw te ci jàkka ji la bokk yàlla ëpp jàkka ji moo tax yàlla bët mënu ko gis xanaa déggu leen yàlla lu mu wax maa qadarullaha haqa qadri màggalu leen yàlla ni ngeen ko war a màggalee mu ne wal ardu jamian qabdatuhu yawma alqiyama wassamawat mutwiyatun bi yamini yàlla nee na asamaani juróom ñaar ak suuf yi dama koy lem dank ko ci sama meeg droite yawma alqiyam ba pare kooku nga ni mën nga ko gis kon yàlla nu mu toll kuy dank asamaan ak suuf moo tax bët mënu ko gis mais chaque jour nga dégg ku ne gis naa ko li doy waar yàlla nee na laysa ka mislihi shay man yàlla nuróowuma ak dara ki gis yàlla lan la gis dara ba mun ko expliquer damaa gis dara hein te li garaaw mooy kan mooy kan mooy wax fi damaa gis yàlla kan benn rappeur kuy crise karas tubéyam koo xam ne soo ko ne woon falak ak naa si mu ne la non gaayen kooku depuis town laa ko dóoroon quoi waaye xamul dara munul liir mu ne damaa alxuraan dara la ci munul sax liir ne damaa gis yàlla xanaa boog yow fekkoon ne sax mokkal nga alxuraan boog da ngay fanaane jàng di fanaane naafila di yendoo woor di zikr kenn du la gis ci mbedd yi waaye waajoo xamante ne day crise karas tubéyam sa waaye bopp bi mu ngi mel ne lu kenn xamut mooy ñëw ne la damaa gis yàlla ba mu gëjee julli kenn xamul kañ la ñëw ne la damaa gis yàlla suñu benn dëkkandoo daa xëy rek doom ji ne ko man de damaa gis yàlla mu ne ko abon mu ne waaw pap mu ne ko xaaral ma ñëw mu dem indi bale taxaw xam ngeen bale taxaw mu jël bant bi fëgg ko ko fëgg ko ko fëgg ko ko booy bi yuuxu ñëpp daw ñëw yow da ngay rey kii mu dóor ko ko ba bale bi damm nit ñi ne lan la lan la lan la mu ne ah daa gis yàlla te man plombier laa balaa ñuy añ problème la balaa ñuy reer problème la mu gis yàlla waxu ko sama problème wax na dëgg wala waxul dëgg ah Macky Sall sax soo ko gisoon sa dund war na changé wala Macky Sall laa wax boo nekkoon sénégalais mu recevoir la so sa waay boo ñëwee sa ndékki war na changé sa reer war na changé sa añ war na changé sa yére war na changé waa kon boo gisee yàlla nag war na feeñ coow la warul feeñ ah bu dee dëgg la wallahi war na feeñ waaye mala saf dañ ko dul gis ku ko bëgg a gis ëllëg da ngay xaar ba yowmal xiyam soit aljanna duggee aljanna noos ba yaakaar ne mbir mi jeex na yàlla wax ak ñoom ne leen lu des ñu ne ko mbir mi mat na sëkk lépp loo ñu waxoon tey mi ngi nii gis nañ ko yàlla mu ne des na ñu ne lan mu ne ma jàkkaarloog yéen ngeen may gis foofu la mbir ma nekk ah foofu mooy concert bu ngand bi moo tax concert yi jara muñ foofu mooy soirée bu mag bi moo tax soirée yi jara muñ keroog balaa dara di xew yàlla day génne daawuda mu jàng zabuur su daawuda jàngee ba pare yàlla indi muhammad kii dañuy dégg ay basfar ay matrud ay mansawi ah huzayfi sudaysi ñuy jàng alquran ñuy kannasu di bëgg a dof nga gis ku nekk ci ginnaaw di xëm waaw muhammad mi alquran bi wàccoon ci moom kon bu jàngee nu mu war a mel su muhammad jàngee ba doyal gaa yi di yuux yàlla mu ne ko arrêté man maay jàng mbokk yi foofu moo loolu mooy soirée loolu jar na lu ne suñ la ne woon wooral ba dee jullil ba mokk bu lekk bul naan jaamul sa borom wallahi loolu jar na ko yàlla nee na keroog wujuhun yawma izin naadira ila rabbiha naazira keroog kanam yi dañuy leer nëtëx leer nañ jàkkaarloog seen borom comme ni ngeen di gisee weer wi di ko xool yal nañ ci yàlla boole kon mbokk yi islaam aqida pas-pas la kon nañ vérifier sunu pas-pas ndax yàlla rek moo nekk sunu xol yi est-ce que leneen nekku ci waaye wa ibada islaam jaamu yàlla la bu ñu yaakaar ne jaamu yàlla dañuy toog koor ba koor rek ñu commencé déedéet waabud rabbaka hatta yaatiyaka alyaqin jaamul yàlla ba dee fekk la ci bés bu nekk am na jaamu yàlla bu yay ci yow ban jaamu yàlla la mooy jaamu yàlla bi teew sénégalais dafa xatal diini ba boo ko nee jaamul yàlla mu ne la julli naa léegi laa jóge jàkka ja mais loo bëggati gis nga pour ñoom julli rek mooy jaamu yàlla koo ne jaamul yàlla mu ne maa ngi julli xamuñu ne jaamu yàlla dundin la sooy sol sa dàll amoo droit sol dàll bi lu dul da ngaa war a laaj lislaam ban tànk laa war a njëkk a dugal ci dàll bi mu wax la nga sol soo koy simmi da ngaa war a laaj lislaam ban dàll laa war a njëkk a simmi sooy sol yére bi ban loxo moo war a njëkk a dugg sooy simmi noo koy simmee même booy tabax sa kër amoo droit tabaxee néeg yi nu mu la neexee douche yi amoo droit def ko fu mu la neex lal yi amoo droit tege ko nu mu la neex parce que booy tëdd da ngaa war a jublu penku sooy dugg toilette amoo droit jublu penku amoo droit jublu sow kon jullit aw dundin la ci lépp loo ciy def dafa am lu la ci islam sant même soxna si ngay takk même ku góor ki lay takk bul yaakaar da nga war a nekk ci mbedd yi rek daje ci soirée yi gis koo xam ne dafa sëf bopp bi ba mel ne gaynde simb ah takk ay tuuroog ay ay jeux de lumière di xuy xamaj rek mu jommal la ci biir lamp yi nga dem takk dañ laa tànnuloo c'est parce que da ngaa war a taxawal këru jullit da ngaa war a taxawal société islamique projet boo xamante ne da ngaa war a taxawal islam kon boo waree taxawal islam foog nga takk jigéen ju gëm l'islam foog góor gu gëm l'islam takk la ah munoo ne man jullit laa ba pare sawaay góor goo xam ne soirée rek la gëm di la takk munoo ne man jullit laa bu jigéen waa joo xam ne du yendal du fanaanal mi ngi ci caaxaankat yi bëgg laa denc munul nekk yàlla bam ne innal muslimina lu mu ci teg wal muslimaat gis nga jullit bu góor mu ne ak bu jigéen wal muminuun wal muminaat noonu yàlla limee ko ci ñaar ñii noonu la ko lime sax ci ñu bon ña wal munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat wal muminuuna wal muminat baaduhum awliyaau baad yaamuruuna bilmaaruf wa yanhawna anil munkar jullit bu góor ak bu jigéen ñooy ànd même ci liggéeyu lislaam munoo nekk jullit bu góor takk wal mushrikaat yi munul nekk munoo nekk jullit bu jigéen benn munaafiq takk la munul nekk du ngeen am ay doom yu baax jamais olof yi nee nañ lu dundoo ci tàgg bu naawul jaaxali mbokkam kon ibaada islaam ibaada jaamu yàlla la jaamu yàlla googu nag ci nuñ ko mën a déggee mu yaatu mooy aw dundin la du jamono du guddi du bis du weer déedéet ñun balaa ñuy jaamu yàlla weeru koor su dee ci guddi yi laylatul qadr su dee ci bis yi ajjuma su dee ci weer yi weeru koor weeru koor nga gis ñëpp normal waaw koo wax mu ne la booy damay sellal damay sellal xale jigéen yi koo wax mu ne dañuy sellal waaw ah bu weeru koor jeexee kan moom moom yeneen weer yi ah ramadan yàllaa ko moom kan moom moom sawal ku moom zil iqda waaw ku moom zil hijja yàlla yàlla moomu dañ koy jaamu tout le temps guddi bëccëg sedd tàng neex naqari wér feebar lépp da ngay jaamu sa borom loolu mooy waabud rabbaka jaamul yàlla hatta yaateekal yaqiin ba dee fekk la ci kon soo defaree sa pas-pas ba pare na nga xam ne li ci tegu mooy al ibada waaye wa watan wa jins l'islam réew la da ngay fexe nga dund ko ci sa réew bu yaakaar ne l'islam nit ñu weex ñoo ko moom wala waa Makka ko moom wala arab yee ko moom déedéet jins wa watan couleur boo nekk war nga mun jaamu yàlla yonent bi alayhi salaatu salaam état bi mu yoroon ay nit ñi ñuul dañ faa nekkoon nekk ay ambassadeur sax nag ku mel ne Bilal muazzinu rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu bëree bëri tey ci Sénégal soo demee ci jàkka yi bu ñuy tànn Bilal dañoo yaakaar ne géwél la war a doon dañoo yaakaar ne ku saf xorom la doon mën a kaf kàccoore wala mu saay-saay dafay rek mu ne bilaal waaw bilaal a ngoog de wala jottali moo war a nekk métier am déedéet loolu du woon métier bilaal bilaal moo yoroon magasinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli gu yonent bi mës a julli bilaal a ko nodd bilaal moo doon àndandoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam fu yonent bi dem bilaal a ngi ci ginnaawam yonent bi dem na laylatul isra wal mi'raj kaw asamaan dégg tànk bilaal di yëngatu biir aljanna te mu ngi dund mu ngi mu ngi dund deewul kuy dund say tànk di yëngatu aljanna yonent bi ne baaw jibril lan mooy yëngatu fii mu ne ko fii sa kër la mu ne waaw xam naa ko mu ne waaw bi ma fi duggee damaa dégg lu fay kuruj kuruj ji loolu lan la mu ne ko tànki bilaal moo fi yëngu yonent bi daal di jaaxle mu ne bilaal nekk ci suuf deewul ay tànkam di yëngatu aljanna loolu nu mu nekkee yonent bi wàcc rek jubal ci bilaal ne ko bilaal kaay mu ñëw mu ne ko waa bilaal yow loo def ba sa tànk di yëngatu aljanna bilaal ne ko saa yu ma njàppee njàpp mu bees julli ñaar ràkk waxul farata yi de waxul farata yi saa yi sama jàpp yàqoo ma koy beesalaat ma dem jàpp balaa may toog dinaa jullil yàlla ñaari ràkk ci njàpp moom est-ce que kooku kon dina sànq farata est-ce que kooku kon dina bàyyi farata saa yu njàpp mi yàqoo may jàppaat pour préparer julli balaa dara di xew njàpp mu tooy xepp moom dinaa ci jullil yàlla ñaari ràkk ndeke loolooy sabab bilaal di dund ci suuf tànkam yi di yëngatu aljanna waaw sene sahaaba yi noonu lañ meloon yonent toog na di waxtaan ak jibril ba jibril di ñibbi ne ko bu aba zar ñëwee nga nuyul ma ko jibril laa wax xam sahaaba yonent bi jommi ne ko jibril a taarifu aba zar mu ne ko naam wa kayfa laa aarifuhu wa jamiu malaika man fi sama yaarifuuna da nga xam abazar mu ne ko waaw du man rek maa ko xam de mboolem malaaka yi nekk ci kaw asamaan xam nañ ko mu ne wa kayfa yaarifunahu waaw nuñ ko xamee bu ñëwee nga laaj ko ko abu zar ne tëll yonent bi xëcc ko teg ko ci wetam ne ko abazar jibril la nga lay nuyu abazar malaaka yi ci kaw asamaan dañ la xam waaye yow loo def ba malaaka yi xam la mu ne ko qul wa allahu laay jàng guddeeg bëccëg mu ne ko lu tax mu ne ko mooy carte d'identité yàlla moom laay màggale yàlla saa yu may julli qul wallahu laay jàng ndek mbokk yi affaire yi du làmbatu affaire yi aw dunduñ la olof yi nee nañ la mu saf ka ko màcc moo ko xam kon fekk ñu màcc islam bi foog ñu nangoo koo dund waaye bañ ko nekk di làmbatu bañ ko nekk di ko taf tafee bañ a nekk ay trichekat c'est parce que duñ dem fenn kon foog ñu nangoo koo dund ndeke l'islam bi mu nekkee aqida nekk ibaada diinun wa dawla dafa war a nekk diin nekk dawla waaw allahu akbar dafa war a nekk projet diine boo xam ne état bi daf koy dund xoolal tey état wu Sénégal xoolal tey dëkk bi ah leneen lañ jël teg ci kaw diine ji lu waaye yi ñuy àttewoo du lislaam suñuy projet du lislaam bal sax li ñu yàlla nattoo moment yi nu toll ci àdduna bi mooy xeex diine waaw l'islam kenn fegatu ko xeex rek lépp na ngeen fexe toroxal jullit yi waaye wallahi dañuy sonal suñu bopp diine ji diine yàlla la benn boroom xam-xam nee na ma saa yu ma duggee ci kaaba gi ma dégg allahu akbar allahu akbar ma ni abu jahlin fenn lii la bañoon mu jóg jóg na ci kaw mbokk yi diine lislaam ki am jàmm mooy ki ci dugg ànd ak moom mu dem waaye ki koy xeex di nga torox adduna torox alaxira c'est parce que yàllaa ko yor cheikh abdul hamid kiski nee na islaam samsun la taarifu lmaghib l'islaam jant la xamul sow ba mu fenkee ba fii du sow ana ñaata nit ñoo fi jaar pour xeex diine bu leen yaakaar ne l'islaam a ngi tàmbalee ci muhammad déedéet ca aadama la tàmbalee ba fii nu toog projet la bu yàlla indi ci kaw suuf diineem aadama islaam la indi woon nuux islaam la indi ibrahima islaam la indi muusa islaam la indi isa islaam la indi muhammad moo ñëw tëj islaam boobu ñun ñii islaam boobu lan nu wax ñu dund wala tamutunna illa wa antum muslimun yeex na bu leen dee lu dul ay jullit ngeen kon islaam diinun wa dawla dafa nekk diine waaye diine boo xam ne état ba sax moom la ñuy dund mais xoolal quatre-vingt-quinze pour cent musulmans yi ñuy naxee ci semaine bi ban yan jour la ñuy feetu dimanche ñan ñoo ko moom ñun ñoo ko moom Pâques ñan ñoo ko moom korite ak tabaski ñaara fan la ñuy feetu amul férié boo jullee suba liggéey yi Pâques ñaata fan la yéen élèves yi Pâques ñaata fan la 15 jours pour ñan la ñun jullit yi ñoo ko moom ba 31 décembre ak 24 ñan ñoo ko moom ah wala ñun dañ ñu koy imposer fal force fal force da ngeen koy feetu fal force ñaata calendrier bi ñaata feet ñoo ci nekk te benn feet du islam te ñun ñoo ñun ñoo ëpp 95 pour cent musulman ñeneen ñi nan lañ toll motuñu sax deux wallahi motuñu deux buñ leen doon wàññi suñ defoon sondage wàññi leen 1 virgule wala 0 virgule waaw lan moo tax ñu jël leen këpp suñu kaw c'est parce que olof yi nee nañ bukki bu yabee ponkal ca doxin bala ñun la parce que nun noo dëgguwul nun noo gëmul diine làmmiñ yi rek a fi nekk ak wax yu bari yi waaye diine islaam dëgg bi yàlla wàcce ñu tuuti ci ñun ñoo ko gëm loolooy suñu problème fekk dafa war a nekk diin wa dawla waaye mu nekk lan ginnaaw diin wa dawla moom lislaam dafa war a nekk ruuxaaniya wa amal dafa war a nekk ruu ba pare nekk lu ñuy jëf mbokk yi islaam ñaari mbir la yaram ak ruu ruu jaamu yàlla gi moo koy dundal yaram bi lekk moo koy dundal ak naan léegi nag ñun bu ñu toppee yaram bi bàyyi ruu gi te ruu bi moo war a dund yéeg ci kaw collaborer ak sunu borom ñu jokkoo boo dundalee yaram bi bàyyi ruu bi kon sa digganteeg sa borom dagg na communication amatu fa portable la bu amul réseau bépp jullit boo gis digganteem ak yàlla amul collaboration amul jokkoo mooy xottu saaku ceeb bu amul dara wala nga ni portable bu amul réseau jullit dafa war di jokkoo ak yàlla moo tax yàlla ne la was jut waqtarib su jóolat jege ma mu ne wa amma rukoo fa azimu fihi rab wa amma sujud fa aksiru fihi du'a su ngeen jàppee seen óom màggal leen yàlla su ngeen sujootee mu ne ñaan leen jege ngeen yàlla wasjud waqtarib al imam mu ne man su ma sujootee Abdullah ibnu Mubarak mu ne su ma sujootee damay ñaan yàlla di ñaan di ñaan ba sama soxna xorom bi muy xorome cin bi sax duma ko bàyyi ñu ne ko lu tax mu ne yàllaay maye te moo ko yor mu ne ñaan leen ma dama ko koy ñaan du ma bàyyi sa xorom si ndeke mbokk yi foog ñu jàngaat suñu diine ñu révisé waat ñu xam ne islaam amal jëf la waaye mushaf wa sayf téere bi la ak jaasi gi kama yaqulu cheikh Muhammad Ghazali mu ne laysa al islam tilqatun faariga l'islam du saag bu amul dara l'islam du bool bu amul dara déedéet perte na mooy ku jàpp ne l'islam diine la rek june cundung dara nekku ci waaw jàpp alxuraan téere barkeelu la balaa ñu koy jàng am ku dee Sénégal saa yoo fekkee mbooloo toog di jàng alxuraan bu laaj daa am ku dee waaw ñu bàyyi ba waaji dee ñu ñëw di ko liiral luwaa yàlla bi yaa ayyuha alladina amanu ida qumtum ila salaati fekk waa ji daa dee yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam waa ji dee na warkaw maa raakiin fekk waa ji daa dee walillah ala nnaas xijjul bayt waa ji dee na ñu ngi jàng ñu ngi koy jàngal luwaay wasaariqu wasaariq fekk waa ji dee na ban njëriñ lu mu koy jëriñoo ah bi ngay dund lañ ne nga jàng diini ji bi ngay dund lañ ne nga jàng ko jëfe ko mu jëriñ la waaw tukulóor yi nee nañ longere maaro sa nokki a waɗe huƴƴuduma a andata safi andat wulit so fekke boolum ndogu buñ la tegal ginaar yu tàng jër nga ni jabet benn ginaar daal di koy teg sa doq naan aka neex da ngay fen soo ko tegee fii xam nga loo war a wax aka aka tàng mais nga teg ko fi naan ah aka neex du dëgg kañ ngay xam ne dafa neex soo ko lekkee mbokk yi allahu akbar soo ko lekkee kañ ngay xam ne islam dafa neex soo ko dundee mais boo ko dundul doo xam dafa neex fi mu nekk ni ñu bëri bëri yenn saa yi dañ lay xool saa jaaxle mais saa waay yow doo déglu musique nga ni ko déedéet mais saa waay yow doo doxaan ko déedéet mais saa waay yow doo tux saa waay yow doo naan saa waay yow doo fecc mais yow dundoo bañ a dund lan mooy dund xoolal waa ji li mu wax yëpp yàlla da koo tere waxaw la dara lu baax waxaw la dara lu positif yëpp négatif naan sàngara ku nite sax du ko def njaaloo ku nite du ko def waa ji ba mu ñëwee ci yonent bi ne ko dama bëgg nga bàyyi ma may njaaloo nga xam ne tey caaxaankat yi li ñuy def amoon na ñu ko daan def ci kanamu yonent ñoo ne yonent damaa bëgg nga bàyyi ma may njaaloo saxaaba yi ni wax xanaa kii dafa dof bëgg a gàddu seeni yat joflanteeg moom yoon ne bàyyi leen jàmbur laaju leen man la laaj nga ne loo bëgg mooy damaa bëgg nga bàyyi ma xale bu jigéen bu ma gis rek maa ngi moom ñu ànd mu ne ko ndax bëgg nga ko def sa yaay subhanallah waaye yonent yow tamit mu ne ko yaay jàmbur yi nga ko bëgg a def xale bu jigéen bi nga bëgg a jàpp ci loxoom dugal sa biir néeg tëjoog moom mais yaayu jàmbur la est-ce que yow bëgg nga ko def noonu sa yaay est-ce que bëgg nga ko def noonu sa sœur est-ce que bëgg nga ko def noonu sa tante est-ce que bëgg nga ko def noonu sa rak jamais koo ko ci wax mu bañ koo ne tey benn xale bu góor laa gis mu jàpp sa rakk bu jigéen dugal ko fii mu ne la booy kooku tey ma rey ko ah kon xalaatal doomu jàmbur bi nga koy def te man zana zuniya lahu ah yeneen bi nee na saa yoo saa yoo njaaloo weeg doomu jàmbur même boo amul doom sa muus mi ci kër gi dana njaaloog moom foog nga fay bor bi yeneen moo ko wax de man zana zuniya lahu waaw waaw même boo amul doom bu jigéen benn waaye dana dox ba sa digg kër mu tëral fa jigéen sa yëg moom nga ubbi sa buntu gis leen ñu tëdd nga ne sa waay tey ngeen a jóg ci digg kër gi boo nga dugal ko ci waa biir waañ yi loolu mooy yonent bi nee na doo ci mën dërëm parce que bor la bu ñu lay fay kon nañ ko moytandiku lu bon baaxul lu bon kenn bëggu ko kenn bëggul mu jëm ci yow pourquoi nga bëgg koo jëme ci nit ñi kon yonent noonu la defaree woon société bi yar nit ñi ba nit ñooñu doon def lu bon ñoo mujj def lu baax parce que xamal nañ leen ne lii dafa bon ñu bàyyi ko ndek kon l'islam mushaf wa sayf kama yaqulu al imam muhammad ghazali laysa al islam tilqatun fariga tuhaddas dawiyan wala tusibu hadafan nee na l'islam nekkul lu ñuy waxtaane nii rek amul benn jubluwaay amul benn objectif déedéet l'islam dafa am lu tax mu jóg yàlla mooy borom jaam ñi moo moom ñépp moo bëgg ci jaam ñi dara tànn yonent bu tudd Muhammad na ñëw wax leen li mu bëgg mu indil leen diine ji loolu mu bëgg nii lañ koy defee loolu mooy l'islam moo tax bu ñu xoolee arkaan yi dañuy fekk ngëm yàlla nekk juróom benn ñu fekk islam nekk juróom ñu fekk ihsaan nekk benn ngëm yàlla dañuy fekk yépp juróom benn yépp xol bi moo koy liggéeyal yàlla al imaanu billah al imaanu bil malaika al imaanu bil kutub al imaanu bil rusul al imaanu bil yawmil axir al imaanu bil qadri xayrihi wa sharrihi mu nekk juróom benn yoo xam ne yépp juróom benn yooyu xol bi moo koy liggéeyal yàlla nga ñëw ci islam mu nekk juróom yooyu cër yi ñoo koy liggéeyal yàlla yaram bi bët yi bakkan yi tànk yi nopp yi loxo yi biir bi yooyu ñoo koy liggéeyal yàlla nga ñëw ci ihsaan mooy loolu nga gëmoon ak loolu nga doon liggéey na rafet an taabudu allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraak na nga jaamu yàlla sooy jaamu yàlla na rafet mbokk yi kenn ci ñun góor ak jigéen su fekkoon ne léegi dañuy julli biñ ne allahu akbar malaakal mawti ñëw ci sunu nopp dee la ne la sawaay boo sëlmalee da ngay dee de julli googu nan lañ koy jullee ndax dañuy dóor mu daanu ah ndax day gaaw ndax ruko yi day gaaw bi nga ne allahu akbar rek commencé malakal mawti ñëw ne la assalaamu aleykum boo sëlmalee da ngay dee ah, ndaw julli gu garaaw ndaw julli gu ànd ak jooy ndaw julli gu yàgg ndaw julli gu xam ne jàng yi sawaay allahu akbar waaw léegi nag julli googu la ñu bëgg ngay julli bi su nekk ndax mën ngaa dee ci julli di doomu aadama yi di yee- tëddee seen lal dee am na ñuy dee ci julli chaque jour bu ngeen demee ci youtube bi wala facebook da ngay gis ñoo xam ne dañoo dee ci jàkka yi ah gis naa waa joo xamante ne ci weeru koor gi dafa julli ba pare tëdd di noppalu teg kaamil bi ci dënn bi dee kaamil baa ngi ci dënn bi gis naa koo xamante ne dafa sujjóot dee gis naa koo xam ne ci ràkka bi ci sàppe bi la taxaw daanu dee ah ah gis nga léegi nag imagineel ñu bëgg nga nekk ci lu baax ba dee ci léegi nag nga dem dee ci lu bon am na ñuy dee stade keroog am na ñu dee ci làmb ji ah di supporter ji ba kaar bi jullitoog ñoom ñëpp genn wàll gi am ñu dee ñuy blessé ku dee ci làmb looy wax yàlla dañ delloo suñu xel ku dee ci baar looy wax yàlla ah ku fecc dee fa xam nga am na ñu demoon Val d'Or embouteillage am ñu dëggati leen ñu dee ñooñu lu ñuy wax yàlla te yuba as kullu abdin ala ma mata alay ku nekk fi nga dee ngay dekki allahu akbar ku nekk fi nga dee ngay dekki dafa am benn xale boo xam ne dafa doon dem jihaad yaay ji dénk ko mu dem ñu rey ko biñ ko reyee buur bi suul ko ba pare mais dafa jaaxle ci xale bi mu ñibbi ci kër gi di laajte mu ñëw fekk yaayu xale bi mooy jigéen ji nga xam ne keroog bi ñuy laajte naan dañuy laaj ndimbal fas yi dañuy dem xeexi sahaaba yi dañuy xeexi dañuy tas diine ndaw si xool biir këram xool ba sonn amul lu mu joxe mu daal di tas kaalaam daal di ràbb kawar gi kawar gu gudd la ko yàlla mayoon mu ràbb kawar gi def ko benn buum daal di dagg bopp kawar gi daal di jël diw def ko ci kawar gi daal di kolewu nekk buum mu lem ko ba mu dëgër mu ñëw ci amiru jullit yi mu fëgg guddi asalaamu aleykum kooku dégg kàddu jigéen mu ne jigéen guddi heure bii duma la wuyu ba suba mu ne ko loolu de taxul woon ñu fal la dan laa faloon pour saa yu ñu la ne asalaamaaleykum nga xool kii dox ak kii nuyoo luy aajoom mu ne wax nga dëgg mu ubbi mu ne ko damaa déggoon ñuy laaj ndimbal pour fas yi dañuy jihaati mu ne waaw mu ne waaye awma lu ma joxe de waaye lii rek laa am lii nag sama kawar la def naa ko benn buum damaa bëgg ëllëg bu ngeen xëyee suba ñu ngalaabe ko fas yi ñu dem xeexi ci yoonu yàlla kooku moo am doom mu ne doom ji demal nga jihaati waaye boo demee bul fi ñibbisi te reyuñu la te dinaa xam ndax dangaa daw wala dangaa dangaa engagé mu tax buur bi mu ñëwee xool ne ndaw soosu la mu ne ko sa doom ji daf maa jaaxal yaa ko jur mu ne waaw mu ne balaa ngay wax sama doom xeej yiñ ko jam fan lañ ko jam mu ne ci kanam mu ne alhamdulilah kon dawul bu doon ci ginnaaw lañ ko jam dafa daw waa ji ne ko loolu jaaxaluma de mu ne li la jaaxal ci moom mu ne damaa gis biñ ko biñ koy gasee ba suul dañoo gis ay picc ñëw ne ko sarax yóbbu ko kaw asamaan loolu moo jaaxal mu ne allahu akbar kon sama ñaanu doom nangu na sama doom guddi gu nekk su su may naafila ak moom gis nga moo tax jigéen ju baax góor gu baax da ngay yee sa soxna ngeen di naafila naafila du weeru koor ba weeru koor lii stage la formation pour ñu mun tàmm ko su koor jeexee ñu mën a naafila waaye da ngay gis koo xam ne booy kañ nga gëj a naafila booy weeru koor daaw de laa gëj moské weeru koor daaw laa gëj moské de la ilaha illa allah xoolal jullit boo xam ne weeru koor la gëjoon jàkk booy ñëwti naa de jaajëfaay ah après bu weer koor jeexee nga ni ila ramadanil muqbil ya rabbi ila ramadanil muqbil moo jë ah sama borom ba beneen ramadan ñëwaat loolu musiba la Ustaz jaabata yummiraɗo ñagantaɗo ɓiɗɗo so jam inshallah ndeysaan yaay ji ne sama doom ji ñaanam nangu na chaque jour bu nuy naafila maa ngi moom fii ba ba ñuy dégg salaat day tàllal yàlla loxo yi ne ko yow sunu boroom maa ngi lay ñaan dee ci lislaam su may dekk nit ñi di génn ci biir suuf ñii di génn ci montagne yi ñii di génn ci pax yi mu ne man naa génn ci biiru picc yi dugg biir aljanna picc yooyu ñoo ko jël si picc yooyu bi ñu ko suulee picc yooyu ñoo ko ne cas yóbbu yow man xiyaam bu nuy dekk ci biiru picc yooyu lay génn mu ne sama bàmmeel bu ko kenn gis naa génn ci biiru picc yi dugg biir aljanna allahu gis nga ndeke xoola xale boobu yaayam moo ko formé da ngay dégg ñu ne waraa ak kullu azim imraa ponkal moo gis jigéen moo nekk ci ginnaawam moo tax bul jigéen booy tànn soxna da ngay tànn soxna soo xam ne boo bëggee biddanti mu ne la nijaay salaatu nañ tegal naa la ndox bu yàgg jógal waaw 4 heures la lay yee ne la nijaay jógal ñu julli ah da nga jabar ju mel noonu waaye jabar joo xamante ne boo déggee asalaatu xayri mi ne la nga bëgg a jóg mu ne la hum, nga ngeen tëdd kooku musiba la waaw kooku musiba la soxna soo xam ne bu déggee salaatu nga bëgg a jóg mu ne la foo jëm bu ma fi bàyyi man kenn ñemewu ma xam nga fu muy mujjee ak yow bis ñëw mu yuuxu ba ñëpp ñëw mu ne jël leen yóbbu jàkka ja te bis boobu day ñëw de soxna si nga am mu tere laa dem jàkka fajar mu tere laa jaamu ji yàlla bis a ngi ñëw day yuuxu ba ñëpp ñëw mu ne jël leen yóbbu jàkka ja boobu ban bis la mooy bis boo génnee àdduna du nangu fanaanoog yow de jamais allahu akbar minute bi nga faatu rek la yuuxu ñëpp ñëw ñu jël yóbbu jàkka ja moom du nangu sax fanaan ci néeg bi ca saal ba lay fanaaneeg nit ña allahu akbar te moom moo la tere woon nag léegi dem jàkk léegi nag yóbbu nañ la yenu nañ la su ko defee nag jàkka ji taxaw naan ma kaana lahum an yadxuluha illa xaifin sama waa ji da ragalul yàlla ndax juróomi ponk la ko fi indi dañ koy yenu te biñ koy yenu kat ci kees lañ ko dugal tëj ko ne ko fal force tey di nga dem jàkk xam nga ne kooku yóbbul boppam ku juróomi ponkal yenu tëj ci kees ne la jàkk fal force di nga dem su ko defee jàkk ji naan la yow ragal yàlla indiwu la fi parce que dañ la fee indi kon luy luy sa mbir buñ la sangee ba pare nanu bëgg jàkk dañuy dem jàkk buñ bàyyi ba weeru koor jot ah lii ma ni ñuy def formation la pour ñu tàmm jàkk pour ñu ñeme jàkk pour ñu bëgg jàkk jàkk kan ma ko moom wa annal masajida lillah jàkk néegu yàlla la yow jaamu yàlla nga jaamu yàlla kay war na bëgg néegu yàlla ah jaamu yàlla néegu yàlla jaamu yàlla war na bëgg néegu yàlla néegu yàlla war na nekk sa xol bi góor ak jigéen nag lii may wax jigéen ñi ci lañ bokk bu jigéen ñi yaakaar na ñoom waruñu dem jàkk ah kay jàkk yonent bi alayhi salaatu salaam góor ñi ak jigéen ñi dañ ko doon fees mbokk yi islam hatta yakuna min al islam manhajul haya waaqiiya fala budda an yatahawala ila haraka waaqiiya islam pour mu nekk aw dundin wu nuy dund foog ñu wàcce ko ci sunu bopp foog mu nekk mouvement boo xam ne bu ñuy dund la wa an la yabqa nazariyat mustatir fil kutub bu ñu bàyyi islam rek mu nekk ay ay rëdd yu ñu bind ci téere yi ay rëdd rëdd ñu bari ci ñun dañu yaakaar ne l'islam ay rëdd la waxee rek ñu ne waaw tisbaar ñeenti rakka la timis ñetti rakka la weeru koor déedéet lu ñu rëdd islam dañ koy wàcc dund ko ñu bàyyi koo seeti ci biir téere yi tey lan moo tax Sénégal am problème da ngay dégg laaj yoo xam ne barki démb xoolal liñ ma laaj benn waaye dafa woor de daal di laaj feebar dem hôpital ñu bindal ko ay comprimé mu dem laaj benn borom xam-xam kooku ne ko mun ngaa wan comprimé yi sans ndox ah Sénégal ngay gis même porte ki borom xam-xam ku la neex dégg ngeen fi waa barki dem waa ji naan mees moog mbax ne yam xaw ma gref gref lan greffage moog mbax ne yam mbax ne moog mbax ne yam rek ñooyam àtte mu ne boo mun ngaa tëdd ak jabaru jàmbur sax doo am benn bakkaar ah nee na tànk sooy jàpp kenn du ko raxas dañ koy fo dañ koy masa tànk ñu ne ko waa hadis bi yonent bi wax ne laana allahul wasila yal na yàlla sori yërmande ku mees mu ne hadis bi wérut ndax ku toll na yonent bi du rëbb ay nit ñuy dund yàlla rëbb na ay nit ñu ngi dund iblis yàlla rëbb na ko wala yàlla rëbb ko iblis a ngi dund yéeféer yahud ak nasaraan yàlla rëbb na leen te noo ngi dund ah kon yàlla rëbb na ay nit ñuy dund waxuma la ak Muhammad lan mooy rëbbam yàlla mooy yàlla dalay sori yërmande loolu kese la mooy laan baatu laan loolu lay teg moo tax ñàkk jàng arab musiba la ñu bëri dégguñu arab ba pare bëgg wax ci diine bi gis nga baatu waliyu suñ nee diw waliyu la lan ngay xalaat ah kii de moom xam na yàlla kii de mi ngi gis yàlla kii de xam naa ne moom xam na asamaan lu fa xew waaw yàlla bu ne man waliyu laa yàlla mu ne seytaane waliyu la yow waliyu nga kon si waliyu am na lu muy tekki yàlla nee na man waliyu la allahu waliyu lazina seytaane waliyu la walazina kafaru yow waliyu nga kon waliyu am na lu muy tekki mais baat yi rek la ñuy dañuy ko wax baat yi ci arab kenn duñu ko firil ci olof islam dafa war a nekk waaqi yi lu ñuy dund nekk ci terrain bi nga xam ne ñëpp ku nekk ci ñun day xam ne lii diine la ñuy dund waaw waaye diine joo xam ne ay ay bind kese la bind balaa ñuy gis islam rek foog ñu dem jàkk waaw bu ñu demee jàkk sax balaa islam di ñëw foog ñu xaar imam mbokk yi loolu lu doy waar la tey ci suñu dund da ngay dem ngénte doo gis islam nga dem céet doo gis islam nga dem dëj doo gis islam dëj laa wax ba ci armeel ya ba ci armeel ya nga gis ñuy suul nit ci ay bidaa ci ay shirk bokkaale waaw mës naa fekke benn dëj boobu ba léegi damaa ñaan yàlla sunu borom saa yu ma fekkatee caaxaan dindiwuma ko yal na ma yàlla faat ci dëj boobu ma demoon fekke dëj ñu suul ndaw si ba pare nga gis ku taxaw daan ne taaw leen ñu taxaw mu ne jàng leen nangam day dem aljanna par force ñëpp na teg armée li ñu dem ñibbi sama xol bi di tëf tëfi mën na léegi di tolloo fukki at loolu duma ko fàtte mukk erreur bu bon boobu ñu defoon fekke ku wax musiba te dindi wuñ ko te nit ñi mënoon koo dindi lu leen ci fekk fekk leen ci loolu moo fi am tey loolu moo am Sénégal ay musiba kese kese kese la ñuy def waaw da ngay gis ñu suul nit nga ne nga gis ku ne ana diw mu ne maa ngi nii mu ne taxawal ci bopp bi jàngal yaasin ana diw maa ngi nii taxawal ci tànk yi jàngal fata surat fati ana diw maa ngi nii jàngal nangam ana diw maa ngi nii bu neexee yàlla bu ko neexul day dugg àjjana Sénégal ak ñoo yeb yàlla xoolal barki démb théâtre Sanex bi seetaan ngeen ko de mu ngi xas yàlla waaw maa ngi fi ak moom sama portable su ngeen yàkkamtul kay ma teg son bi pour ngeen xam ne ñun duñu waxantu dëgg lañ leen di wax di yàpp yàpp yàlla naan ko yow ku jara waxal nga waaw moo tax xoolal même bu nu wooree ba ngoon bu nuy ndogu lan la nuy tagal sketch yo amul benn njëriñ amul benn bopp amul benn genn nga xam ne dañu war a heure bi heure nangu ñaan la danoo war a toroxlu ci suñu borom ñaan ko ñu indi la ay ñaan yoo xam ne da ngaa war a ñaan mais bal xoolal ndeysaan dañ lay fàtteloo loolu indi la ay théâtre yoo xam ne amul bopp amul genn ay nit ñoo xam ne tekkiwuñu dara ci société bi wallahi wallahi bu nu tëddoon fii sax di nelaw kenn du leen laal tous lañ tekki wut ñooñu tey lañ jël ah def leen ay ay ay ay lan ay champion def leen ay royukaay def leen ay idole ñooñu tey ñoo ñoo yor sunu jigéen ñi ñoo yor sunu góor ñi ñoom ah ñooy sunuy royukaay yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu sori ko yal na nu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko déglu leen lii loolu leer na xaaral ma delloowaat ko bu leen yàkkamti jël leen seen temps ñun duñu waxantu de lu ñuy wax yépp dafay leer nañ am na yoo xam ne ab jullit du ko def dégg nga dégg ngeen de Déjame
Déjame de el quoi.
Corán. yàlla lay wax de dégg nga loolu yàlla lay waxal de dégg nga du dégg ngeen lii moo gën a ndaw de lii moo gën a ndaw nañ continuer dégg nga dafa ak yow daal mu ngi nii image yaa ngi nii ah wala loolu du moom ah wala dañ ko tricher moo ngi nii lii moo nekk Sénégal fo dañuy fooye bay fooye yàlla xamuñu fu ñu war a yem xamuñu lan mooy fo xamuñu luy kaf soo waxee ñu ne lii théâtre la ah dañuy théâtre di théâtre yàlla yàlla est-ce que yàlla suñu moroom la léegi lii suñuy doom buñ ko seetaanee lu ñuy wax suñuy soxna suñ ko seetaanee lu ñuy wax def yàlla kafukaay def ko caaxaan su ko defee xam ngeen yàlla dafa sacré diine dafa sacré yonent yàlla Muhammad lii la waa saar lépp doo def rek ci Muhammad lii la lii kese la yàlla wax ak yow dafa jot jullit taxaw di wax loolu yàlla duma ko sant dara di ko fawe am na ñoo xam ne dañ leen ne woon ne kaay leen ñu xeexi ñu ne naaj bi daa tàng yàlla ne leen yéen génn ngeen ci islaam walaqad qaalu kalimatal kufru wax ngeen baatu kéeféer weddi ngeen ginnaaw ba ngeen gëmee yàlla kii li mu wax ak dafa tàng lu gën a garaaw ma ne yàlla kenn du ko fooye mbokk yi te tey lii moo bëri ci sunu télé yeeg sunu rajo yi ci weeru koor gi sax di nga gis koo xam ne dafay ubbi antenne ñuy ay caaxaankat ñu koy woo muy caaxaane diine bi waaw nañu delloo siwaat xel yi yaraat njaboot yi defaraat pas-pas yi xam ne mbir yi du lu ñuy làmbatu mbir yi dañ koy dund tey bu fekkoon ne dëkk bi dëgg-dëgg pas-pasu islaam wér na kii dañ koy tuubloo dañ ko naan tuubal su nanguwul dañ koy rey parce que dafa murtad am na baat yoo xam ne boo koy xëcc ci diine génn nga ci islaam ni mu amee lu yàq njàpp nga jàpp ba pare bëgg a dugg julli am loo def sa njàpp yàqu am na wala amul am na loo xam da nga koy def sa koor yàqu am na wala amul am loo xam da nga koy def sa aj yàqu am na loo xam ne boo ko defee sa islaam mooy yàqu islaam bi ci boppam mooy yàqu foog nga tuubaat kii loola def lan la def ah fi mu nekk nii suñ ko waxoon noonu ci kaw rek ñëpp jàpp ne loolu amul waaye yéen a déggal seen nopp fan yëpp fu ma yóbbu dinaa ko anis dinaa ko teg nit ñi dégg ko parce que duñ tuumaal nit ñi dañuy wax dëgg yàlla gi man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur parce que lii moo nekk Sénégal fooy yàlla fooy diine waaw boo tourné mbedd yi laa ilaha illallah yoo fi gis sabar lay àndal tëgg fecc ba bët set waaw laa ilaha illallah yu ànd ak tëyëxu waaw wala partout Sénégal loolu moo fi nekk te laa ilaha illallah ni mu sacré xoolal moo- yàlla nee na moo tax ma bind asamaan ak suuf moo tax ma bind aljanna moo tax ma bind safara moo tax ma yónni yonent yi ma ne ku ko bañ a wax xeex leen ak moom loolu tey ndeysaan yonent yàlla Moussa dana woon yàlla lan mooy miisaanu laa ilaha illallah yàlla mu ne ko Moussa su ñu jëloon asamaan yi juróom-ñaar teg ci plate balance ñu jël suuf yi juróom-ñaar dolli ko ci ñu jël laa ilaha illallah teg ci beneen plate bi mu ne la maalat ilayhinna laa ilaha illallah laa ilaha illallah dina ko daaneel waaye maar asaf ñun dëgg-dëgg diine ji daal doy na waar ci Sénégal soo fi amee imaan tuuti sa xol bi dootul neex ci li ngay dégg ci li ngay gis kon islaam a ngoog bu mu nekk rek ay bind ci téere wala mu nekk ay archive fala budda an yabqa fi xududu shaair ataabudiya yaqulu sayid qutb wala yakunu lislam sha'air wa ibadat aw ishraqat wa subahat aw tahzibat khulqiyan wa irshadat ruhaniya duna an yata'abbada kullu hadha hadha kullu mu ne islam warul nekk rek ay shi'ar lu ñuy yëkkati ay drapeau waaw warul nekk rek lu ñuy wax ci ay rajo warul nekk rek lu ñuy seet ci téere yi warul nekk ay mbubb yu ñuy sol warul nekk rek ay dessin yu ñu bind waaye dafa war a nekk aw dundin wu ñu dund loolu mooy mbir mi waaw warul nekk rek ay dessin warul nekk yére warul nekk sijaada warul nekk warul nekk lan la war a nekk aw dundin wu jullit yi dund nga xam ne fu nu nekk loolu la ñuy dund sooy ngénte ni lislaam bëgg ngay ngénte sooy takk ni lislaam bëgg sooy lekk ni mu bëggee sooy sol ni mu bëggee waaye ndeysaan wala léegi col gi col gi tubéy góor yi fi ñu koy takk tubéy xale góor yi léeg-léeg suñu jàkka ji nga gis ku sujjóot man la waa sa waay yow bi nga sujjóotee sa silib yaa ngi feeñ xam nga ne góor gu sujjóot sa silib génn foofu julli am na fa ah julli amu fa naka la jullit di solee loo xam ne tubéy bi nga jiital dafa génn ci biti loolu ban pas-pas la ak loolu ñan ngay roy ak loolu fër nga ko jëlee lan moo taxoon ñu ñu ñu def tubéy ñu def ci buum lu taxoon ñu def ci ceinture loolu takk ci ndigg li xam nga ne tubéy bu munta euh, ndigg lu munta téye tubéy ndigg loolu xam nga ne lu mu ne du yore jabar de waaw du ko yore dama gis ñaar ñaari xale ñett lañ sax ñu ngi yor ngandu télé di ko yóbbu ci réparateur bi suñ demee benn mètre teg télé bi yëkkati tubé yi dem benn mètre teg télé yëkkati tubé yi man leen télé bi du yegg ñu ne père lan la ma ne ko télé bi du yegg ñu ne lu tax man leen seen tubé yi takk leen ko ngeen yaru li yóbbu ko père jéggulu jéggulu jéggulu nañ jéggulu ngeen di jéggulu doy waar dafa metti mbokk yi kon wala yakunu al islam shiar islam bu mu nekk rek ay drapeau bu mu nekk kurus gu ñu yore bu mu nekk jukki bu ñuy jàng kese bal dafay nekk dundin woo xam ne daf lay yeggal ci yàlla tabaraka wa taala nga jublu ci moom ci sa xol ci sa lépp aaw walla balaa ñuy xam ne yow ab jullit nga rek nga yor kurus ah ñu ne waaw kii de jullit la yenn saa yi sax waa ji moom bu yorul kurus ne nga yow jullit nga mu ne waaw non yow doo jullit mu ne billahi jullit laa jullitu billahi waa ji ne la doo jullit mu génne carte d'identité bi jullit kay jarul génne carte d'identité jarul waat waaw nga doog a gis Muhammad wala Abdallah wala Khadija nga ne pourtant jullit la de pourtant jullit la de dama dugg benn hôpital fekk fa ay xale jigéen yu toog def ay bopp neen ma ne asalaamualeykum ñu ne waaleykum salaam yaa jullit ngeen ñu ne ñun ah jullit lañ kay loolu jar naa laaj ma ne man kat damaa gisul seen xàmmekaay yu jullit ñu ne ah jullit day am xàmmekaay ma ne waaw jullit kay ku ko ne jàkk xam ne jullit la yéen ana seen xàmmekaay yu ne ne ay jullit ngeen ñu ne ñu ngi nii de ñun de dañ ni jullit lañ ma ne ko waxuma loolu fii ngeen toog ana seen xàmmekaay buy wane ne yéen gëm ngeen yàlla jullit ngeen ñu ne ah yow da ngaa bëgg ñu muuru ma ne gis nga kenn waxu fi muuru xàmmekaay laa leen laaj ku fi tudd muuru man waxuma fi muuru di ñu ne non kon man la xoolal damaa bëgg rek ngeen won man lu ñu leen di xàmmee ne ay jullit ngeen won leen ma ko ñu ne pat ma la jeex na kon kay du ngeen ay jullit comme yow il faut nga waat nga waat nga jóg ñu ne la doo jullit nga jóg doog a muuru ji wala nga jóg doog a jàpp ji wala nga jóg doog a jullit ñu xam ne jullit nga loolu du islam lan la yàlla waxoon jullit ñi ci alquran muhammad rasulullah walladina maahu ashidda ala alkufar ruhamau baynahum tarahum rukkaan sujjadan yabtaguna fadlan min allah wa simahum man rek yaa nga wa simahum fi wujuhim soo ne kanam yi jàkk rek xam ne ñi ay jullit lañ yonent bi dafa jóge màkk ñëw midin benn waay di ko wërsi ñoo ne ana yonent bi ana ki waa ji ne mooy yonent anamu gaa yi ne ko boo jàddee nii daal mbooloo yooyu toog am na mu nga fa toog ci biir mbooloo mi mu ne ba ma nee tëll gis mbooloo yi toog mu ne am kanam gu ma ne jàkk mu ne fa lamma stabantul wajha araftu anna al wajh laysa bi wajhi kazzab mu ne bi ma nee tëll gis kanam waaj mu ne laa xam ne kanam gi borom du fenkat kii lu mu wax dëgg la parce que dafa leer yomb naa xam waaye kanam goo xam ne sa waay foog ñu def ci akañi foog ñu def ci top zelak gana ñuy doog a xam ne kii leer na ah loolu loolu du diine loolu du diine waaw diine mooy leeraayu islam moo lay dund moom ngay dund laxdari dafa jàngale ne li salaati nuurun azim tushriqu fi qulubi almusallin mu ne wala yanaaluhu illa alxaashiun gis nga julli mu ne dafa am daan neex bu ci nekk dafa neex imam bi bu taxawee ci kanam di jàng gaa ñi nekk ci ginnaawam taxaw ruko su fekkee dégg nañ alxuraan dégg nañ li muy jàng dañoo war a sentir yàlla dañoo war a sentir lu neex yenn saa yi loolu ngay dégg gaa yi nekk ci ginnaaw di jooy ndeysaan parce que dañoo dégg imaam lu mu wax ak ak ak ak ak dëgg-dëgg waa Sénégal niñ gëmee loolu benn paamu ne waaw xam nga lu tax arab yi bu imaam bi di julli ñuy jooy ma ne ko déedéet mu ne ma seen maam moo dóoroon yonent bi loolu la ñuy jooy seen imaam ñoo dóoroon yonent bi loolu la ñuy jooy ma ne ko du loolu de mu ne du loolu ma ne ko du loolu ñii li ñuy jooy dañoo dégg imaam bi li muy wax yàlla mooy tëkku yàlla mooy wax ak ñoom loolu la ñuy yëg ñuy jooy waaye seen maam moo dóoroon yonent bi jooyuñu loolu mais ñoom loolu lañ ko loolu lañ koy firee c'est parce que jànguñu diine c'est parce que xamuñu diine dañ jàpp ne diine moom dañ koy làmbatu fekk diine kenn du ko làmbatu diine dañ koy dund loolu mooy wax bi kon mbokk yi haza huwa al islam lii mooy islaam mu nekk aw dundin woo xam ne yatlubu an laa yakuna al muslimuna jahilin bi umuri dunyaahum diine ji waxul jullit ñi ngeen réere seen adduna déedéet ngeen toog bañ a liggéey nekk ñu yaafuus diine ji dafa wax nga liggéey imal li dunyaaka ka annaka taisu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamutu gadan diine ji dafa ne nga yow fajar julli ji soo paree nga xëy liggéeyi waaye yaafuus tëdd di nelaw foo gis ku koy def déggul diine yenn saa yi nga gis ñu ne diine ji moo tax nit ñi yambare déedéet diine ku ko gëm sa ñaq ngay lekk may doo lekk ñaxu nit ñi diine ku ko gëm da ngay liggéey ay loolu ay nit kenn du la liggéey loolu diine ku ko gëm saa yoo génnee ci liggéey lañ lay gis ndax diine ji moo santaane liggéey yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn waaye nuyu na ko loxo yi wow koŋ mu dëgër gaa yi ne laa ilaha illallah kii da loxo yi yonent bi daal di xëcc loxo bi fon ko daan ne yadun yuhibbuha Allah loxo bu yàlla bëgg a ngi nii ndax loxo bi liggéey moo ko wowloo yadun yuhibbuha Allah yàlla dafa bëgg jullit bu am métier jullit buy daan doole moo tax mu ne jullit ñi dañoo war a xam ne nekk ci islam warul tax ñu réere seen àdduna warul tax ñu am ay kër yu ñu dëkk yu baax warul tax ñu am oto yu rafet yu ñuy war tey jii koo ko fi wax mu ne si est-ce que loolu loolu est-ce que loolu dagan na est-ce que war naa lekk ginaar yow yaa tax yàlla bind ginaar pour nga lekk ko la huwa allazi xalaqa lakum ma fi l ardi jamian qul man harrama zinata allah allati axraja li ibadihi wa tayibaatu min arrizq yàlla nee na waxal ak jullit ñi kan mooy araamal lu baax li ma leen wàcceel kon ñun ñoo ko moom nanu gëm sunu bopp gëm sunu diine tey Sénégal bu nu gëmoon yàlla gëm diine kenn du nu raw parce que li yàlla di avancé loo adduna bi yëpp mu ngi fi énergie am na fi wala amu fi ndox am na fi wala amu fi suuf am na fi wala amu fi lu des soo duggee àll bi suuf kese la Sénégal deuxième pays africain réserve ndiyam après le Cameroun.
ñoo fi ëpp ndox waaye xoolal musiba bi ñu dal temps yi la passé gis ngeen tiwo bi ba mu tojee tiwo bi jógee lante guerre bi mu tojee ñaata fan lan toog fi naanu ñun waa Dakar ndax yaafuus c'est parce que li ñuy jàng baaxut programme tubaab bi mu ñuy jàngal baaxut da ngay gis ay ñu jàng tubaab ba yor ay doctorat ay licence mu ñu munuñu munuñu nas puso munuñu nas puso parce que baaxul foog ñu dëpp liñ ñuy jàngal baaxul programme bi baaxul su ko defee ñu jàngal nit ñi lu baax loo xamante ne da ngay jàng am métier di liggéey waaye jàng loo xamante ne da ngay dégg docteur docteur lan science politique kooku lu muy def fen kese ak wax fen ak wax docteur science politique saa yoo déggee ñu ne kii docteur science politique fen kese la jàng ak wax kese mënul defar dara kooku ban njëriñ la amal réew mi waxu kese ah loolu baaxul ci dëkk yonent bi alayhi salaatu salaam dafa yaroon sahaaba yi gis nga keroog ba ñu wàccee ma jóge Màkka ñëw Médine yonent bi aaxaa baynal muhaajiriin wal ansaar Abdurahman ibn Awf ndeysaan benn waaye da ko ne Abdurahman mu ne ko naam mu ne ko am naa ñeenti soxna kaañ dem kër ga nga xool koo bëgg ma fase ko nga takk ko am naa ay kër nañ dem ñu wër kër goo ci bëgg ma génn nga dëkk sama alal a ngi nii jëlal loo bëgg nga liggéey mu ne ko baarakallahu laka fi ahlika wa maalika dullu ni ala suuq yal na yàlla def sa barke ci sa alal ak sa njaboot wan ma marché bi waa ji ne ko marché baa ngi ne la mu dugg ci marché bi di jënd di jaay di jënd di jaay ba nekk ko ëpp alal madinatul munawwar benn bis romb na yonent bi yonent bi ne ko Abdourahman mu ne ah mu ne ko gis naa la ngay dugg aljanna di darangu di raam mu ne ah may dugg aljanna di raam mu ne waaw mu ne baax na mu rombaat yonent bi ñetti fan yonent bi ne ko gis naa la ngay dugg aljanna di waaxu waaxu yi tàng mu ne nii la waaye raam alal ji la jël séddale mu nga kon nanu xam ne islaam dafa ñëw pour defar sunu àdduna la budda min an yaxuuda almidmar wa yakunu mutalliin ala al ahdas foog ñu nekk ñoo xamante ne dañuy déplacé wu dañuy bouger duñu sax benn place nekk ñu fuus nekk ñoo xam ne gëmuñu seen bopp xoolal li indi barça wala barzaq lan moo ko indi mooy ñàkk gëm seen bopp di dugg ci bato yi di dee te fa ñuy dem ay nit ñoo fa nekk fii ay nit ñoo fi nekk mais ñee dañoo nangoo liggéey ñun nangoowuñ liggéey ñee dañoo nangoo nekk ay nit ñun nanguwuñ nekk ay nit waaw sànq maa ngi koy waxtaan benn waaye daal di jël micro ne sama benn frère dafa dem Europe France mu jógee Paris war a dem Toulouse mu ngi mel ne fii ak Tambacounda nee na bi muy génn Paris rek mu daal di sànni benn canette naan ko rek sànni ci tali bi nee na mu daw daw daw daw lu toll ne fii ak Thiès xaw ma fii ak Kaolack ah benn gendarme droité ko mu taxaw mu ne ko pièces yi mu joxe mu ne ko bi ngay génn Paris am nga loo sànni mu ne ko man sànniwu ma dara mu ne ko si am nga loo sànni nañ dem ci caméra surveillance yi ñu arrière cassette bi ñu ñëw ñu génne ko bi muy génne Paris dafa sànni canette mu ne ko da ngay fay waaw ñu taxé ko mu fay ba pare mu defe ne day continuer tukki bi waa ji ne ko dañuy dem nga for canette bi sànni ko ci mbalin mi dañuy delluwaat dañuy delluwaat mu ne noonu damay tukki te léegi ma yegg waa ji ne ko dañuy delluwaat nga for canette bi ku la koy faral yaa ko sànni mais doos ñun duñu bale dëkk bi nga koy salteel mu ne noonu la dellu siwaatee Paris far canette bi def ci mbalit mi nee na tukkeem bi daal di yàqu mu dem ñibbi tukkiwul wala ñooñu dañoo nangu nekk ay nit keneen ki benn sénégalais la boo xam ne Italie benn gendarme da ko fekk mu lal mu ne ko fii nga lal kenn du fi lal dégg nga laalil sa bagage daal di koy romb dem tuuti daal ne kii laaliwul daa tourné ñëw fekk mu ne yow lan laa la waxoon mu ne waa xaaral léegi ma laali daañu ne ko ma la fekkaat daal dem ba sori daal ne est-ce que kii est-ce que laal na daal di ñëwaat fekk mu lal daañu ne ko yow ban nationalité nga mu ne ko sénégalais mu ne kuy seen président mu ne Abdou Diouf mu ne yow de bu fekkee ne ne am na fukk yu mel ne yow foofu kon Abdou Diouf du liggéey fekkee am na fa fukk yu mel ne yow kon réew moomu du dem dëgg la réew moo xam ne sawaay yi dañoo dëgër bopp looleen tere ñu def ko boo nee fii bu fi kenn lal ñu lal fi boo nee fii bu fi kenn saw ñu saw fi soo nee fii kenn du fi tuur mbalit ñu tuur fa mbalit réew moom nu muy demee léegi léegi ci tàkkusaan islam ak environnement laa doon def léegi léegi wallahi al azim tàkku tàkkusaan 4 heures ba 6 heures maa ngi def islam ak environnement falaa jógee dem kii conférence la ma jëlee ma ñëwaat fi benn mais il faut ñu nangoo dem il faut ñu nangu bouger il faut ñu nangu nekk ay jullit il faut ñu nangu xam li yàlla bëgg ñu nekk ci ñu xam ne mbir yi du ñu toog rek weeru koor xoolal fii ci li ma gis kañ la ñuy gëj a waxtaanaat weeru koor déwén kañ la ñu gëj a def waxtaan bu mel nii ci jàkka ji weeru koor daaw fan la ñuy gindee ko su fekkee ñun dañoo war a gindee ko ci alquran dañu war a wax li yàlla bëgg li yonent bi bëgg duñ ko def lu dul weeru koor ba weeru koor guddi gi laylatul qadr sawaay bu fekkoon ne weeru koor laylatul qadr ba laylatul qadr la ñuy lekk ñu tegal ñu lekk daal di wooraat kenn du lekk kenn du naan ndax ñu bëri ci ñun dinañ ñëw fii ni sunu yaram yi soxlaa lekk guddeeg bëccëg noonu la sunu ruu yi soxlaa diine ñu koy wax ñu koy suuxat ci diine ñu koy suuxat ci yàlla wax naa leen sànq nit ñaar ñoo ko composé ruu ak yaram ruu gi leeru yàlla moo koy dundal jaamu yàlla moo koy dundal moom ruu yaram bi lan moo koy dundal mooy lekk ak naan moo tax bu nit dee ruu dem kaw asamaan yaram ci suuf la jóge woon ñu delloo ko ci suuf waaw ruu bu nit di faatu rek nga gis ruu gi génn dem kaw asamaan ndax ruu leer la bu bàyyeekoo ci yàlla li koy dundal mooy jaamu yàlla ibaadaat mooy dundal ruu su fekkee nag yow léegi yaram bi nga dundal dundaloo ruu gi lu muy tekki mooy doo yegg ci yàlla te nun ñëpp mbokk yi dañoo war a yegg ci yàlla ñun ñëpp dañoo war a dem ci suñu borom su fekkee waxtu bi jot na nga wax ma ko ok mu ne fal waajib alal muslim idan tasxiiru dunya li war jullit mooy lan mooy mu dundal àdduna fi maslahatil islaam waaye nag ci maslaha islaam lal ingimaas fiha wala almutalazizat fiha wala nisyaanu al axira axira jullit li ko war mooy mu dundal adduna nan nga koy dundalee ci loo xam ne l'islam d'accord na nga dundale ko adduna bul nekk rek di làmbatu waaw nekk taxankatu guddi xamoo dara ci islam da ngay làmbatu chaque jour ma wax ne jullit du nekk taxankatu guddi soo bàyyee ba guddi nga jël sa saak nga ne da ngay uti matt nga dugg ci àll bi ah di jël fekk matt ngay dugal di dugal di nga fekk jaan ju lemu nga jël dugal ci biir saak bi loo foog matt la di nga fekk ay dem àll ba yoo koŋ nga jël dugal ci saak dafa ne matt la kañ kañ ngay xam ne li nga dugal ci biir saak bi li ci ëpp du matt kañ nga koy xam ah su bët setee bët set mooy lan mooy nga jàng kon bu nu bëggee nekk jullit bëgg a dundal diini ci maslaha bëgg a dundal adduna ci maslaha islam foog ñu xam fu nuy teg suñu tànk foog ñu xam lii nu bëgg a dund lan la foog ñu xam lii nu bëgg a def def lan la xoolal jullit boo xamante ne ci weeru koor nga woor feebar ñu bindal la garab ñu wax la ne garab gi mën ngaa naan comprimé yi sans doo ci boole ndox nga ñooñu nga defe ne jàng nañ keneen ki lan la wax mu ne man de damay julli waaye yenn saa yi damay gis gars yi di yëngal seen baaraam yi rek di yëngal ma ne ko léegi nag mu ne man tamit bu ma tollee foofu damay yëngal rek waaw waaw damay yëngal rek man tam bu ma fa tollee est-ce que gars yi dañuy yëngal rek li yëngal kese la amul lu nuy wax ah amul lu nuy wax dañuy yëngal kese nii kese la ñuy def yëngal déedéet dafa am lu ñuy wax suñuy yëngal l'islam lépp looy def am nga looy wax ci julli fépp foo toll am nga looy wax ci l'islam lépp looy def am nga looy wax fii nu nekk ci jàkka ji na kenn laaj benn laaj daan ne nangam su ma ko waree def lan laay wax ñu xool booy tëdd am nga looy wax boo yeewoo am nga looy wax soo jëlee satala bi di dugg ci duus bi am nga looy wax soo génnee am nga looy wax soo toogee di jàpp am nga looy wax boo jàppee pare sooy julli soo jullee ba pare sooy génn kër gi sooy yéeg ci oto bi lépp looy def sooy dugg liggéeyukaay bi lépp looy def ci lislaam am nga looy wax lépp laa wax foo nekk am nga loo war a wax am nga loo fa war a def boo demee ci dëj boo demee ci ngénti boo demee ci céet yépp islaam wax na la loo war a wax mooy kon doo làmbatu su fekkee yow dañ laa jàngal lépp waroo dem di làmbatu ndax mbir mi leer na soo demee dëj sooy jaale am nga looy wax waaw soo demee ngénte borom ngénte bi am nga loo koy wax soo demee takk ki takk am nga loo koy wax partout fu nekk am nga looy wax place bu nekk waxtu wu nekk islam jàngal na la ndeysaan démb barki démb xaw ma dafa commencé woon taw ban bis la barki démb barki démb wallahi alazim wallahi ci jàkka laa nekk sama ñaari doom yoo xam ne ñeenti at lañ ñam maa ngi dégg kenn ki naan moom rakkam bu bu góor bi naan ko buy taw da ngaa war a wax allahumma sayyiban nafian maa ngi ci biir néeg bi sama xol bi sedd mu ngi naan rakk ji suy taw da ngay wax allahumma sayyiban nafian moo ngi nii di taw ngay wàcc naan da ngay génn te waxoo loolu allahu akbar man loolu da nga koy dañ koy jàng même buy taw nekk am nga looy wax allahumma sayyiban nafian nga jàngal ko say doom yar leen ci orienté leen tette leen ci diine suñu màggee dañuy dañuy xam diine waaw temps yi passé dama toog rek sama benn doom bi mu ne ma papa damay xutba ma ne ko xutba looy xutba mu ne booy jiite jumaa li ngay def loolu laay def ma ne ko yow da nga koo mën mu ne mën naa ko de ma ne ko waxal mu ne ma ana micro bi ma gestu benn yat bu nekk foofu rek ma ne yat bi am micro baa ngi nii mu ne ana xutba bi ma rocc benn téere ne ko am mu ne filmé ma ana film bi ma jël sama portable daat taal mu commencé inna alhamdulillah man ne wow kii fan la mokkale lii ndeke li ma koy yóbbu àjjuma yenn saa yi bu may jiite ànd ak moom su jàngiwul ndeke am na ci lu bëree bëri parti xutba bi genn wàll gi yëpp mokkal na ko mu ngi ni nga gis ne kon lépp loo bëgg sa doom di ko def da nga ko koy jàngal mu ngi ni voilà kii kii la magam doon wax ne suy taw da ngay wax allahumma sayyiban nafi'an kon ndeke mbir yi duñ ko tricher mbir yi ñun ñii la ñun la islam fi mu jaaroon rek ku fa jaar rek am li waaj naan fa ma jaar ku fa jaar taqban fi sayyidina muhammad jaaraloon sahaaba yi suñ leen fa jaaralee rek ñu amaat léegi génération sahaaba yi ci góor ak jigéen nag góor ak jigéen wallahi buñ fa jaarale suñuy njaboot jaarale fa suñuy soxna jaarale fa ñëpp am nañ benn xale boo xamante ne 31 décembre 24 le 25 xam ngeen 25 Sénégal lu ñuy def dañuy dañuy feetu xale bi wallahi quatre ans la am Ibrahima Ngom jour le 25 seen waa kër yëpp di feetu moom kenn mu xew fajar sangu ñu solal ko yéreem daal di koy wékkal saakam sàkk de solal koy daal la mu génn di jàngi papa ji moo ma ko nettali papa ji ne maa ngi ci kaw étage bi toog di def sama asgar xale yi ànd ak man di ko yuuxu bi mu wàccee ba ubbi buntu kër gi bon ñoom moom ñoom ñu ngi ci kaw moom mu ngi ci suuf ñu koy yuuxu naan ko Ibrahima amu leen feet Ibrahima amu leen feet xale bi daal di tourné ndeysaan daal di jàkkaarloog papa ji ne leen ñun jullit lañu ñun jullit lañu papa ji nee na tuuti ma jóge ci kaw balcon bi wadd damaa mujj toog mu ne sama bët yi taa mu ne tumaa muñ ma génn dugg sama miir néeg di jooy ndax xale bi wax bi mu wax ñun jullit lañu wax na dëgg ñun moomuñu feetu 24 ak 25 moomuñu ko moo tax xale bi ne ñun jullit lañu te pourtant xoolal bi mu desee 3 jours ñu leen di xamal ne ñun duñu feetu école bi dañuy jàng jardin bi na ñëpp ñëw ñun jullit lañu ndeke xale bi këru na affaire bi. wala bi mu demee rek jour ba ñu ne ko yéen feetu leen mu ne ñun dañuy jàngi ñu solal ko ay yërëm waa kër gi di ko yuuxoo naan ko amu leen feet mu ne leen ñun jullit lañu. wallahu wallahi wax na dëgg. loolu nag xale boobu def ñun ñëpp loolu lañu war def ñun jullit lañu wala duñu ay jullit ñun jullit lañu wala duñu ay jullit ñun jullit lañu kon lan la yàlla di séentu ci ñun ñu nekk ci bëgg-bëggam bàyyi tereem lan la yàlla di séntu ñun ñu nekk ci santaaneem sori lim ñu tere lan la yàlla bëgg ci ñun ñu nekk ay jullit ñu bañ a nekk ay jullikat ça fait deux jullit ak jullikat du benn jullikat mooy koo xamante ne julli rek moo ko booleeg diine jullit nag mooy koo xam ne tout le temps mu ngi def li yàlla bëgg te yàlla dafa bëgg ci ñun ñu nekk ay jullit loolu la ñu wax wala tamutunna illa wa antum muslimun te loolu ndénkaane la de wa wasa biha ibrahim yaqub ah ya baniya inna allah astafa lakum ddin fala tamutunna illa wa antum muslimun yaquba moo ko dénkaane woon ibrahima moo ko dénk yaqub yaqub dénk ko ishaq mu dénk ko ay njabootam mu ne leen bu leen dee dajeeg yàlla lu dul ay jullit ngeen kon ñun tamit loolu lañu war a dénk suñu njaboot loolu lañu war a dénk góor ñi dénk ko jigéen ñi kenn ci ñun warul dee dajeeg yàlla mbokk yi lu dul nekk jullit maa ngi jéggulu waxtaan wi njuum tey incha allah di ko yemale fii ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
ñu ngi doon di sant yàlla di ma wax yàlla yàlla na yàlla yokk xam-xam ñu tey si amee yàlla ñu ko yàlla jëggal ñu waaye ñu yàlla bu loolu weesoo incha allah suba comme samedi bi ñu koy defee école moom